221 une autre vision de la télé. jamono ji ñu nemmeeku ci Diourbel daanaka opposition bi mu ngi jeex Pape Mamadou Fall directeur de l'emploi di njiitu dëgg moo wër di ànd ak dam job ci élection locale yi ñu jëm moom de semaine bu ne dina décrocher ak ponkal ci kuje politique bi bii la yoon ñu nemmeeku ci Ibrahima Sow njiitu bokk gis-gis ñu investiroon koy tamit ci coalition wàllu Sénégal doon kàngam. mais bis ni ki tey man ñi ma àndal. ak ñi ñi ñi nekk suñu ginnaaw ñëpp léegi dugg si nañ ci parti dëgg moo wóor bu professeur euh, Modou Fall. liggéey jurbel liggéey senegal loolu moo waral ñu rendre suñu démission. bu kenn dootul naatable ci auto politique bi. mu bàyyi lépp lu mu jàppoon ànd ak Mamadou Fall. Ibrahima Sow dëggal na bii le ndax gis na ni mooy le meilleur choix ginnaaw bi mu nemeeku ni ministre Dame Diop kenn du moom ci wàllum politique dafa mu mën a yóbbu dëkk bii di Diourbel sori na ndax jaar-jaaram ak taxawaayam. beneen bi it mooy jëm ci list yi. mooy boo xoolee profilu candidat yi ñun biñ analyser xool profilu candidat yi ñun gis nañ ne Dame Diop il a le profil parce que boo pesé boo boo ko doon pesé tey le fait qu'il soit ministre. audience bi mu am ak envergure bi mu am au niveau national et international li mën a indil Diourbel yeneen candidat yi ma gis mënuñ ko indil Diourbel di waral nag démission bu nemel jàpp na ni ñàkk fulaal ak soofantaal tàmbalee ko ci partiwam di bokk gis-gis waaye tamit ci coalition bu mu bokk moo waral mu tàmm Pape Mamadou Fall dëgg moo wóor ngir jàppale coalition benn Bokk Yaakaar ci élection locale yu ñu jëm ndax ñun dañu jàpp ne booy politique ak parti nekk ci sa dëkk d'abord sa njariñu dëkk moom moo la war a gën a ñor waaye dañu jàpp ne ñi ñu àndal ñu ay leader au niveau national ah fonk ñu Jurbel ni ñu ko war a fonk ndaxte depuis président Pape Diop nag mi jiite parti bi amuñu benn problème personnel sama frère la sama lépp mais problème politique lañu am di fatale ni Pape Mamadou Fall directeur de l'emploi nek na membre incontournable ci coalition Ben Bokk yakar ñewam bi de japp nañ ni amna lu mu changer ci jom Diourbel yi sa suñu wu ndimbal waye tamit soppi na xar kanamu dëkk Jorbel. di Diourbel setal dekk bi ta lamp yi politiquement yi tamit mi ngi contribuer ci lu am solo ndaxte mo ngi décroché semaine bu ne ay membres yi bokku ci politique bi te doon ay à 221, une autre vision de la télé.